ay waay ay waay ay waay ay waay ay waay ay waay ay waay laa ilaaha ay waay ay joomi naa ay waay waay waay waay waay waay waay waay waay ndeysaan ay waay waay waay waay waay waay waay waay waay jigéen kenn du ko toroxal jigéen kenn du ko toroxal ay yow seedal ay yow seedaatal ay waay dolli sa seed nga xamante ni lii mu yor na ko sa këram sëyal ko ba sëy fu dara neewul Balla Gaye 2 daal di koy téye di ko muqi di ko muqi di ko muqi ba yaram ba plaqué Balla Gaye 2 as tuut mu rey ki nga xamante ni mooy jabaram ba ak ñi nga xamante ni ñooy mbokk jabaram ja dama bëgg en exclusivité baba ardo ci bu jaay seen revue tout ak ñi nga xamante ni mooy seen wóob ñu daal di la koy waral na gratuité ay yow xoolal xeeba nu mu woon ak Balla Gaye 2 ak suma lu bàccali lii moo fa def ah sama baa ngi sone waay ah kii na sama rakk la rakki jàmbur <laughs> ah rakki jàmbur allo yow waa su ma la baax ci jooy ba doon wiiri wiiri yaa ngi toj àdduna de ah waaw waaw waaw waaw nga ne laa ilaaha illallah loolu Balla Gaye daa ñemewu ko loo may wax ni nga ne Balla Gaye daa indi jigéen ci biir kër gi. laa eh, ah, xoolal eh dama ne xoolal rek sama xaaral maa koy lijjanti borom borom dëjëm mën naa jooy dëjëm dana xam ne Balla Gaye 2 jamonoy sondel la ba lamb bu tàmpet ñëw ba Balla Gaye 2 commencé taal léegi nag Balla Gaye 2 ci doxal la jóge eh dama ne bul wax coupeel maa ngi ñëw léegi dafa dëkk ak moom sab-sab xam nga ne tey danaa yëngal fi nga xamante ni mooy géeje waay eh rakk sama taxawal rek may ma ñëw ah tamit man maa koy jooy man maa koy liggéey di sama boppam sab-sab laa la les xarma ndap monte si vous avez des hypertension macc leen suusal combat bu rëy bi diggante Balla Gaye 2 ak ki nga xamante ne ni mooy Boury Bathily en direct ay yeew seetal combat bi ku ko wuute wuute nga lu rëy Sénéwood en Balla Gaye 2 génn naa la wax génn yow Balla Gaye 2 dama laa seen ba seen la fu dara nekkul yow Balla Gaye 2 amoo looy def di ma jëndalee jigéen yow Balla Gaye 2 ma nga ñàkkee amoo dara la àggatu ko eh, eh, eh, la ferme la waaye ferme wu ma ko dama koy ñaan yi ma ubbeeku yow Balla Gaye 2 may ma yow Balla ah. Gaye Balla Gaye 2 bu ma lay seyal boobu amoo dara waaw ma muñal la sëyal la tey nag daa boo lépp looy def di ma jënd ak jigéen ah. yow baa la ay eh, dimbale ma du ma la may eh, eh, bul xool laa ilaha illallah doomi mbër jàngal bëre dama ne doomi mbër jàngal bëre yàgg yàgg lay daan ah, waaye dama mbër jàngal bëre man dama mbër ma yàgg sungul man nga ñuy teg di eh teguñ na diir yow yaa jël xale bi di ko ko sa biir néeg bi Balla Gaye de may ma. Balla Gaye de man dimbale mu yar moo jeex. gis naa li nga ñu dund ak man. Eh, dimbale ma waa Balla Gaye de dimbale ma. wuy ma ma sa laa ilaaha illallaah Balla Gaye de laal ma ma koket la ba nga xam ne koket naa. maa dëkk ak ci xam. Eh. dimbale ma morom ah. bu ma wax ngay wax laa la wax. bu mu door et puis sax maa tay xale bi dama koy tax ba mu neex. ba pare ngeen doon tax koo dara ba ngeen ngeen si mën. ba ba waaw bu mu door rek. ba pare génn sama kër laa la wax. waaw bu yeboo mbaa la ngeen doon bu yeboo waaye daal door doo ma ko def waaw maa ngi dem nag waaye mbaa la ngeen doon doo ma door. doo ma door sëyal naa la nag ba sëyal la fa dara newul waaye rukkoo bi nga ma door ak ndengeen bi nga ma door naa la yóbbu police maa la ngay door. maa doon ngeen doon. bu yeboo maa la wax loolu bu yeboo waaw dangaa foog ne dóor bi ma dóor yow nee na la fii la la ma am ma seen tee dóor la ba sax ñaar mi demee ko tey maa la foroo maa la foroo de ma la ko yow yow yow yow tey nga mën a wax tey nga mën a wax. waaw bu dee la génn fii wala mën a fi. waaye damaa la gën xam. génn fii laa wax xam laa wax.